السلام عليكم ورحمة الله مبكي عين ماضي تي في إلى النيل إن شاء الله مني أمنا نتي نيت يو في واتي أي كاسيون موي أمادو فال أك خار كومبندو في أنجون أك الحاج منصور سيسي فاني دا مخاون ген توتي موتاخ مخاو أم رتار في منوان أم لون ريزو dañuy ñëw ci ñaari question yi rek mooy ama Amadou Fall ak xaar Coumba Ndoffène njoom boo defee Mansour Cissé incha allah question bi dinañ ci def dars parce que dafa xaw a large moo tax bu dee question bi jëm ci Amadou Fall dafay laaj ndax nit mën na ajal waajuram boo xamante ni mag la naam effectivement loolu mën na nekk waajuram boo xam ne mag la dafa màgget ba mënatul aji makk nga dem ajil ko niyaabatan an ko maanaam dem wuutul ko li ngay def danga ko ko yéene loola lu mën a nekk la waaye bu fekkee ne koo xam ne nag waajuram day dund te am kàttan moom it aj doon lu war ci moom te mu war a aji moomit it na xam ni ponk bi moom ci dot dam la nekk bala muy doon farata ci waajuram doy doon farata ci moom ba noppi waaw bu ko defee moom na na góorgóorlu ba jéem a aji xëyit na muy def mu mënee yóbbu waajuram mu yóbbu waajuram loolu it lu baax la dëgg yàlla suñ société dañ koo baaxoo ku jekku da ngay yóbbu sa waajur màkka waaye nag ñu xam ni farata la boo xam ni kenn ku ci ne daf la war ci boo ko mënee nga def ko bu dee koo xam ne nag moom dafa toll ci âge boo xam ne mënatu ko te am na ko mu jox la nga dem ajali ko loolu xayrun loolu dara nekk ci lu baax la incha allah wallahu alam bi di ñëw ci ñaareelu question bu xaar Kumba Ndoofeen Joon muy laaj ndax bii maanaam bii màkka boo xam ne dañ ko lëtëri lëtëri ndax loolu mën nañ ci aji màkk maanaam bii boo xamante ni danga koo gañee ci lëtëri lëtëri maanaam carte daal ci maanam maanaam ci bantale rek daal carte maanaam moo xam lonaas la wala loo doon euh, joué daal ba gañe ko ba gañe daal ba gañe ci loola billet boobu kenn mënu ci aji màkk ndax ben carte dafa haram ci lislaam te lépp loo xam ne dañ ko xaramal ci lislaam loola da daganul ci lislaam ñu di ca def jaamu yàlla waaw rawatina jaamu yàlla bu mel ni aj maanaam ki ñëw jox la alal joo xam ne alal ju xaram la alal jooju jarul nga ci sonn di aji ci aji màkk parce que du la jëriñ dara noonu it la ni mu mel ni ki nga xam ne dafay julli ci mbub moo xamante ni mbub mu am sobe la te gis bi mbub moo xam ne mën ci du ngànt noonu it la ci aj rek alal joo xam ne dañ koo jëfandikoo ci aj te alal jooju leewul alal jooju mënul aji mag waaw bu fekkee ne nag dañoo nekk ci entreprise boo xam ne dañuy liggéey at mu dañuy def bantale maanaam am na billet boo xam ne dañ koy dañ koy teg dañuy seet ñoom kan maanaam mbooloo mi dañoo bari foog ñu jox ko kenn ñu bat bantale bantale bokkul ak loterie loterie mooy da ngay jouer da ngay dem jël sa xaalis dugal mën na am nga gagné na am doo gagné mais bu dee ci beneen sens bi kooku bantale lañ koy tuddee mooy loo xam ne dañ koy tirage tirage ñu ne diw moo génn diw naa dem aji kooko lislaam nangu na ko waaw loolu daal mooy li nga xam ne mooy li ci ñëw boo lu ci leerul ñu indiwaat ñu gën ko leeral wallahu a'la wa alam bisawab asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh